ay ca leen ñu gàmmu ji dem Tiwaawan jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy seetaan ci seen télévision Mourchid TV ñu ngi wéy di ànd ak yéen ci seen émission yoonu gàmmu yoonu gàmmu nag eh, ni ngeen ko xamee mooy su gàmmu jotee bu ñu nee gàmmu Tiwaawan la ñuy xalaat ngir yàlla ak Seex Seydil Hadj Malick boobu léegi nag ñu ngi àndandoo ak yéen ci biir Tiwaawan ak kilifa yi nga xam ni ñoo nekk ci tarixa bi waaye tey nag ñu am gan gu spécial di alaaji as ndaw ndukumaan moom nag muy jàmbaar yi tariqa bi eh, am ci taxawaay yu ama am solo wax naa sànq ma ni inspiré nañu ñu baree bari ngir Tiwaawoon wax dëgg yàlla ñu am fi taxawaay bu am solo ndax taalibi bu fekkee bëgg na kër sëriñam wut fa màkkaan ñu ne ko déetawaay mooy lu kër lu xadara bi xewle ñu ñëw taxawu ko boole ko créer fi emploi wax dëgg yàlla yóbbu nañu Tivaouane ci beneen dimension moom nag muy koo xam ni li ñuy faral di wax produit wu daara la ndax lépp lu mu am alquranul karim moo ko gënal lépp lu mu mën di amit dimbali jaami yàlla yi moo ko gënal rawatina xale yi ñu jël ñu jël leen jël seen dëmn def ci xam-xam loolu moo waral taxawaayam ci Tivaouane moo xam kokki la moo xam Euh, Kaffrine ga mu fekk baax baax fekk ko fa la fépp fu El As Ndaw nekk rek mi ngi fay euh, wasaare diine gën a encourager nit ñi ci ñu jël seeni doom pour dugal leen ci daara loolu moom mooy taxawaayam fii euh, xam naa ni du ku ma leen di présenter waaye ma bàyyi leen mu nuyu mu nuyoo ak yéen mbokki téléspectateurs yi El As Ndaw bu sëriñ Mansour borom daara ji bu sëriñ Habib borom daara ji sëñ As ñu ngi lay nuyu di la ndokkeel ci weer wu tedd yi nga xam ni tey eh, Tiwaawan mooy nekk sele bi jullit yëpp jërëjëf aousubillahi mina sheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam eh, sëriñ Jaw ñi ngi lay nuyu ñi ngi lay siyaare ñi ngi lay wax wa aleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu di santaat yàlla di julli ci yonent bi alayhi mi nga xam ne moo ñu may ñu fekkee ko ren e, ba ñëwaat ci gàmm gi e, yal nañ ko fekkee ay ati ati at di sant yàlla nag di sant Seydi Saati Malick si radiallahu anhu di sant njabootam gu baax gi nga xam ne xalifa bi Serigne Babacar si Mansour moo ko jiitee di ko ñaanal yàlla yal na yàlla dëgëral taxawaayam te guddal fanam te jumaa ji yal na ko jullee yal na ko jullee yal na ko jullee bi barakati rasulillahi sallallahu alayhi wa jullee ko lu yàgg yàgg yàgg e, di santaat yàlla mi nga xam ne moo ñu dimbale ba nga xam ne li nga xam ne moo doon seen yitte ci Tiwaawoon yàlla ak ñu ci dimbale ñu ngi koy ñu ngi ciy jéem yal na yàlla àggale ko di nuyu nag sama sëriñ sëriñ Habib si ibnu sëriñ man sor si di ko ñaanal yàlla fan wu gudd ak wér gi yaram di ñaanal yàlla sama sëriñ sëriñ Mansour si yal na yàlla yokk leeram te as ñu ci barkeem dugal ko janatul firdaws mu dëkk fa ak ay way juróom ak mbooleem mbokk yi e, di ñaan yàlla yi tamit lii nga xam ne yaa ngi koy def année bu ne nga ñëw seet si ma fi yàlla nañ ko yàgg def di ñaan yàlla Mourchid TV comme ni tur bi tudd rek mm-hmm. Rachid Mourchid TV mm-hmm. yàlla na yàlla dëgëral ko ba mel ni France 24 ak Al mm-hmm. ak euh, New York Times wax dëgg yàlla kontaan nañ daal kontaan nañ ñun gàmmu su jotee mooy suñu mooy suñu bés yi nga xam ne ci àddina bés yiñ ci gën di bég ndax eh, yonent bi alayhi salaatu wasalaam mbiram eh, képp ku ci yëngatu rek da nga ko gisal sa bopp boole kook nag eh, ñu nga defee ko Tiwaawan gi nga xam ne ki nga xam ne moo ko sos di Seydi Asi Malik kenn ku ne xam ne dimension am ak cëram ci yàlla mm-hmm. kon suñu ci yàlla boole du yaa ci bëgg bokk bokk ci mm-hmm. waaye yàlla moo la ci boole nga mën cee bokk kon ñi ngi sant yàlla mi nga xam ne moo ñu si boole mm-hmm. waaw daara nag xam nga ñun produit yu daara lañ mm-hmm. ñun lu ñu xam rek ci daara lañ ko xamee yàlla dimbale nañu mosuñu dugg école tubaab eh, li ñu ba ni may liggéey nii boo xoolee kay yi ngay gis yëpp ci mbindum ndeyjoor daa koy bind te alhamdulillahi rabbil alamin ñi ngi ci yor ay basale yu baree bari xam nga alquran moom mooy mooy mooy daj dëpp gi alquran boo ko mokkalee e, ba pare xam tuuti ci tafsir bi maanaa yoon woo jublu rek dafay yomb te dafay gaaw moo tax ñun daara e, moo ñu defal lépp alquran moo ñu defal lépp moo tax e, fonk giñ ko fonk it dañu jàpp ne farat la ci ñun ñu fonk alquran moo tax fu ñu nekk rek incha allahu rabbi lu koy yëkkati ak lu koy jëmee kanam ci la ñuy nekk. xam nga ñun suñu wayjur eh, moom it yàlla na yàlla yërëm ko yàlla dugal ko lu janatul firdawsi ak mboolem jur yem fa fekk ak sa jur wi génn àddina barki démb vraiment ñu ngi ñaan yàlla yal na dëkk àjjana dëkk fa ak sëriñam xam nga boo amee jur wu nga xam ne dafa nangoo liggéey jub. Eh, bu la yaree tàggat la ci loolu dangay nekk ci loolu te danga koy gëm moo tax ñun dañu gëm yëngutu dañu gëm liggéey ba démb rek sama doom mi ngi may naan papa te ngaa dem noppalu ju ma ne ko sëñ bi fii amul noppalu àddina noppalu yàlla moo ne laqad xalaqnal insaana fii kabat yàlla dafa bind doom aadama ci coono kon coono boobu kenn mënu koo bañ moo tax euh, wax dëgg yàlla ñun moom liggéey amuñ ci heure amuñ ci bés amuñ ci kii ñun sept sur sept dañ koy yëngatu depuis quarante ans vraiment mosuñu seetlu buñ xëyee te da te wér xëy tëdd mosuñ ko def waaw moo tax loolu ñu ngi ciy ñaax xale yëpp nañu nangoo liggéey te jub te déggal seen way jur yi te yërëm leen te tarbiyewu leen waaw loolu daal wax dëgg yàlla moom mooy sama digganteeg liggéey. commerce nag xam nga dafa am sama nijaay bu baax yal na yàlla xaare ko aljana muy El Hadj Jamilu Ndaw man dama doon jàngale comme arabisant yëpp di jàngale boo école tëjee ma ñëw toog di dajale dërëm ak ñaar dërëm di jënd ay si sew di ci yëngatu ba bés ma ñëw seet su ko mu ne ma na nga dem ut import export yàlla dimbali ñu ñu ut ko waaye nag njëkkeewuñ ci ñu ngi njëkkee ci ay jaay ay diwtiir ak i màdd ak i ay tol ak yooyu yëpp dañ ko doon jëlee Casamance di ko indi Dakar di koy jaay E, tiwaawoon gi gàmm yu bëree bëri bu ñëwee walis laa lan yor def ci ay jaaru am na suma benn xarit bër ki dem rek maa ngi ko wax Aziz Jaxate mhm. ñoo bokkoon jàng ca kokki mu dëkk ndanda mhm. maa ngi moom ñu doon ànd ñëw fii ci marché bi yor suñuy walis di jaay ni ko xale yi defee rek mooy li ma la wax xam nga yëngatu moom mhm. ci jàng ci baalo yi commencé siin mi mara ba nga <laughs> àgg laan loolu mooy loolu mooy yëf moo tax daal vraiment ñun liggéey moom e, comme ni ñu wax alquran lépp la lay jàngal alquran lépp la lay jàngal te boo ko jàngee te topp ko yoon woo dugg rek da nga ci réussir incha allahu rabbi moo tax ñun liggéey bi daal euh, foofu lañ ko jëlee te jàpp nañ ne liggéey mooy may jàmm nag. waaw kooku xam nga mooy li ma la wax rek mooy li may xale yi man leen njub ak dëgg dafa baax parce que loolu ay partenaire laa ci am yu nga xam ne dañ leen a yebal ñu ñëw ba ci sama bureau fekk ma fa wax ma affaire bi. maa leen danaa fa ñëw ñu ne ma noonu dañu lay jëndal billet ma ne ko déet yéen kay bu leen ma jëndal bàyyi leen ma jëndal sama bopp billet su ma ñëwee ba gis la ngeen def te bëgg ko man danaa i pexe ba indi ko fi yàlla dogal ma jógee fi dem Riyad vraiment gi usine bi mu nekk usine bu mag a mag a mag boo xam ne produit bu am qualité lay liggéey eh, ba xool ci ñaari po na fi yeneen sax ñaari produit yi ma ne leen yi moom mun na dox Sénégal xam nga réew mi nag yàlla dogal na depuis quatre-vingt-un ba nëga nii maa ngi ciy tourné bët bu set lu néew néew wax naa ak ñaar fukki nit yu bokkul xam nga loolu da am expérience ba pare réew mi soo ko xamee li ko dalee fii ba Ziguinchor ba Kédougou ba Kolda ba Fuuta ak fépp fenn fu ne dem naa fa di jaay kon xam naa li réew mi bëgg looloo tax wax dëgg yàlla biñ ko xoolee xam ne buñ ko fi indee dina dox ñu indi ko nag réew mi tamit nag delloo ñu ci njukkal jàppale ñu ci ñoom nit ñi bëgg ko mais mu nekk produit qualité bu nga xam ne ku ko jënd di ko jëndaat parce que bu ñu ko jëndoon baaxul ou neexul duñ ci dellu si mais vraiment ren gàmmu gi sax dama am kersa parce que liñ ci indi woon dafa bëri ba jaaxal ñu waaye bi nga ko yóbboo Touba presque bi ñuy ñëw fii eh, li des kon conteneur yi bëriwul biñ ñëwee fii taxawul fii ñu toog di wax ak yow yàlla xam na ak yonent bi desewuñ ci benn produit bu ñuy yaay loolu nag ñu ngi ciy sant yàlla région Thiès it nag ñu sant leen ci parce que ñoo ko gën a consommé loolu moom maa ko wax ca kaw te loolu la kii bi joxe moo tax ñu def euh, maison mère bi Tiwaawoon comme Tiwaawoon moom mooy suñu naanuwaay euh, dépôt bii nga xam ne ñu ngi tuddee immeuble bi Serigne Mansour si mi nga xam ne kenn la woon ci ñun wax dëgg yàlla yooyu yëpp ne du asar ay secret la yu daje yoo xam ne moo def exploit bi mu def waaw Serigne Mansour nag moom xam nga yàlla mi nga xam ne mooy boole ay jaam moo ñu boole mm-hmm. waaye nag sama nijaay moo jàpp ci sama loxo boobu fukki at ak juróom laa am mu andi ma ci moom ne ko kii day da di sama baat ma am ci moom yaakaar di ko ñaanal waaye nag ma xeeb sama bopp ci ñaan gi moo na naa la ko andil comme moom sëriñ Babacar si moo doon wasilaam bu mu fi jógee mu jokku man ci sëriñ Mansour sëriñ Mansour euh, dal di accepté loolu vraiment jàpp ñu comme njabootam jàpp ñu comme taalibeem jàpp ñu comme doomam te ku ne xam ne man Mansour nag borom baatin la ca branchement baag yu ni mel et eh, vraiment xam nga comme ca ma sa branché rek da nga am xéewal eh, yàlla sama borom dogal ñu nekk vraiment mu bëgg lool ma bëgg ko am ci moom yaakaar moom it mu gunge ma jàppale ma taxaw ma zahir ak baatin eh, ba nga xam ne yàgg nañ mu jël sama loxo teg ko ci loxo sëriñ Habib si mu baax mi ne ko dénk naa la aas waaye aas yow itam dénk naa la sëriñ loolu mooy sama diggante ak sëñ Mansour mais jàpp naa ne Tiwaawoon gi daal lu ma fi am gannaaw yàlla ak yonent bi sëriñ Mansour laa koy sante ndax maa ngi nettali ne bés dama ñëw fii indil ko xari tabaski ba ma ñëwee bay dem dem ba jub dakaar mu Touré mu baax mii nga xam ne ku ne xam ne diggante mu sëñ Mansour moo ma woon ne ma wuyul sëñ bi ma wuyu ko mu ne ma xar jeex nañ te nit ñi jeexuñ et ma dal di tourné waat ak sama oto la ma dese ma dem daral ga defaat ko ci rek andil ko ko bi ma ñëwee ba jub ko ba wàcce rek dafa jóg fi mu toogoon dajeeg man ànd ak man ba ci xar yi mu ne ma ni sa mbaal mi toll yàlla na ko say jën toll moo tax ma jàpp ne daal eh, lépp lu ma am tiwaawoon moom sëñ Mansour la loolu moom maa ngi ko ciy sant di ko ciy gërëm di sant taawam bu baax bii nga xam ne yar ak teggiin ak ngor ak jom ci moom la wàññeekoo muy sëriñ Cheikh ibnu man Mansour si di sant nag sama sëriñ muy sëriñ Habib si di ko ñaanal yàlla fan wu gudd ak wér barke alquranul karim ak xewal gu yaatoo yaatoo yaatu et mooy ñoom it gannaaw bu seen wayjur wi génne àddina comme na ma daan def saa bu bésu noppalu bi jotee dama daan ànd ak njaboot gi dem siyaare ji sëñ Mansour ba bi fi jógee ma siyaare leen mu gi nag bu ma jógee mbooloo mi jóg balaa ñoo àgg am ñeenti waxtu ci yoon wi ma dem sëriñ Cheikh Tidiane ci mbaaxam ak yaroom ak goreem ak xam addinaam mu ne ma ah del toog ñuy ñëw del toog ñuy ñëw mu woo sëñ Abib ne ko bésu noppi laa bu jotatee na nga fa dem ñu siyaare wante ak yow ma siya nga xam ne sama kaddu ak sama ndigal nga fa demee loolu moo waral ñu nit nag bi mu ñëwee benn yoon ñaar ci la ñu nag génne yëf yi ci biti ne tàkkusaan gi dippee nañ ko sëriñ Mansour si radiyallahu anhu e, mooy dem ba toll fii mu toll e, nga xam ne buñ ko defee bu ñu gàmmoo ba pare def tàkkusaan sëriñ Mansour bu ñu fa jógee Serigne Sam mu baax mi def fa lam fay def ren sama doom bi ñuy wax joojo nee na dafay def gàmmu bo euh, borom waañu mooy suma yaay la tuddee waañ wii nee na moom itamit bés bu Serigne Abib si ñëwee ba dem ci guddi gi ren dafay def benn gàmmu bu nga xam ne maamam la ko dippee xam nga loolu yëpp ay xéwal la yu nga xam ne yu dajaloo yoo xam ne alhamdulilah rabbil alamin li ma marqué ci moom dafa bëri xam nga sëñ Mansour eh, ni ñu yàlla boolee woon dama naan dem ba am ci kersa ndax néegu biiram ci la ma naan woo ma ñëw toog ñuy waxtaanee lu bëree bëri léegi-léegi mu ne ma defalal sa loxo fii ba def daj dara mu ne ma indi ma indi mu tibb jox ma wala mu di sotti ci buté xam nga sëñ Mansour li ma defal lépp dafa bëri waaye daal am na lu ma ci marqué lu nga xam ne mooy bi mu demee Ziguinchor nga xam ne keroog fa la ma fekk ñu dal otel Aubert man Serigne Habib si boobu man maa ngi Ziguinchor ma yëg ne Serigne Habib a ngi fi ma dem siyaare ji ko ñu ànd dem keroog am benn juma bu nga xam ne dañ ko tabax lu yàgg kenn nu ko julee ndax xëccoo bi waaye ba mu ñëwee ci sañ-sañ ba ak kasu ba ak maqaam ak personnalité ba bi mu dajalee ñaari ñaari ethnie bi ñu toogee rek bi mu waxee kenn ki def na kenn ki jógal nekk ci kanam danaa nekk sa naayib loolu vraiment daf ma marqué nga xool euh, vraiment fi mu woon ci mag xool fi mu toll woon ci daraja mën a jógee fi ba Ziguinchor pour régler ji loolu loolu vraiment dafa dafa ma dafa ma marqué loolu nag moo dama ci jël leçon bu mag a mag a mag maanaam foo dégg lu nar a yàqu rek te nga man ca dara war nga ca def et beneen bi ci des mooy bés boobu mu ma la wax rek bés bi ma ko indilee xar yi parce que loolu mu waxoon bi ma ko waxee dafa am lu ma yëg ci suma yaram wi te booba xalaatuma am kër Tiwaawoon kon nag su yàlla dogalee ma dem fi ba yàlla xéwal ñu fi lim ñu fi xéwal eh, dañuy jàpp na ñaanam googu daal nangu na loolu moom lu ma marqué marqué la ci moom. mbokki chauffeur yi li ñu leen wax rek mooy nañu dox ndànk xam ne ñi yëpp ay ay ay bakkan lañ te dañu am responsabilité ci li ñuy def e, dox ndànk rek yàlla indi leen ci jàmm e, di ñaaxaat nag ndaw ñi nga xam ne vraiment lii xew barki démb ci mbuur lu daw suma yaram lu métti suma xol bi la ndax jur doom yar ko ba mu am ñaar fukki at mu xëy rek dugg ci loo xam ne quatre-vingt pour cent xam na ne bakkanam mën na ca des loolu daal jàpp naa ne buñ yërëmee seen way jur yi eh, duñ ko def ndax jur dafa métti yar gën ko métti te balaa sa doom am ñaar fukki at fekk màggat nga am ci moom yaakaar mu xëy dem deminu daam bi loolu daal jàpp naa ne xale yi war nañu yërëm seen bopp d'abord yërëm seen i jur te xam ne daal eh, toog ci réew mi terewut a am teraanga toog ci réew mi terewut a am jàmm di ñaanit état bi na waxtaan ak réew yi nga xam ne fi la xale yi jëm am nañ fi ay ambassade ñu xool ba xam bu dee nangami nit wala benn quota mën nañ leen ko may ñu organiser xale yi ñi ñii dem ren ñii dem déwén ñii toog liggéey ñu jàppale leen ñu bay sàmm eh, yar ay jur def élevage li ñu mën a def ci réew bi bëri na vraiment na xale yi bàyyi bàyyi li ñu def te gëm réew mi te doyloo réew mi te daan seen doole incha allahu rabbi yàlla danañ fekk vraiment loolu ñu ngi ñaan xale yi daal vraiment ñu dimbale ci mbëkk mi dimbale seen way yi dimbale réew mi réew mi sonn na ci mbëkk mi bët bu set suñ doom yi dee loolu dëgg dëgg dëgg képp ku am doom rek sa boo gisee loolu sa àddina day tukki vraiment ñu ngi sant yàlla bu baax di la sant di santit nag président de la république ñëw fi ñëw tey parce que xam nga wax dëgg yàlla kër gi jàpp nañ ne ku ko fonk rek fonk nañ la ku ko fonk fonk nga ñu te gis nañ ne bàyyi na xel kër yi diine yi e, di ñaan yàlla moom it yàlla na ko yàlla dëgëral oto bii mu yor di ko dawal muy Sénégal yàlla na ko yóbbu fu kowe suñ njort ñun ñëpp ci baax ndax e, Alaaji Abdou Aziz radiyallahu anhu daf daan wax ne boo duggee ci gaal bul ñaan yàlla sa sa ëmb mucc ñaanal yàlla gaal gi mucc kon ñi ngi ñaan senegal yal na mucc ki ko jiite yal na mucc ñi koy doxal yal nañ mucc ñi ko dëkkeeg bàyyi ma yeeg njanaaw yeeg yëpp yal nañ am jàmm bi jaahi naa Muhammad ibn Abdallah gàmm gi yal na nekk gàmm gu gën a neex guñ mës a gàmm ñi fi ñëw yàlla lépp luñ fa wut si yal nañ ko am ñëw ci jàmm dellu ci jàmm allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim jërëjëf mi ngi noonu dégg li nga xam ne El Hadj wax na ko yàlla nañu yàlla yóbbu ci gàmm gi ak jàmm ak salaam yàlla na nu yeggale burdu bi ci jàmm ak salaam ñu ngi wax ñëpp daal ñu ñëw ci jàmm ànd ak yar ak teggin waaye li alaaji as daanee la dafa am solo sunu doom yi nga xam ni ak sunu rakk yi sunu jarbaat yi di songu géej gi te dangay dem rek ngir yaakaar ndax xamoo boo demee di nga amoon déet kon nag toog fii ci réew mi wax dëgg yàlla yaakaar naa ni képp ku ko ci def yàlla mën na la dimbali dëgg-dëgg nga mën a jariñ sa bopp jariñ sa sa njaboot. loolu damay joxe benn anecdote man 86 laa am visa man ak sama benn xarit bu ñu am Modou Ndiaye ak sama mag bu ñu wax Souleymane mhm. bi ñu amee visa man leen yéen bàyyi leen ma dem ba ñëwaat yàlla dogal ma jëmee fii dem Bruxelles mhm. sama xarit bi ma fa seeti woon fa toog di ko xaar ba miin wi mu wàcc mhm. bi mu wàccee togg añ boo xam ne yàlla xam na ne ku ko jox ko taalibe bi du ko lekk ñu añ ba pare mun a day gont ji ma ne lii ma gis xaw ma ko ma jógee fa dem am sama benn mag bu nekk Canada Vancouver ma dem fa ba ma demee fekk moom mu takk soxna subaab ma xam ne kii day dund dundam ma kon ne dem Hong Kong fa ay bagages année boobu la ñu dévalué ba ma ñëwee ma ne suma xarit yi ma ne leen la ma gis gars yi daj fale ko daj Sénégal am leen ñu liggéey mosuñu génn réew mi te alhamdulilahi rabbil alamin moo tax xale yi na ñu gëm réew mi nangoo sàmm nangoo bay nangoo def élevage nangoo yaxantu incha allahu rabbi yàlla dana leen fekk vraiment ñu ngi leen di ñaan daal vraiment nañ bàyyi mbëkk mi mbëkk mi état bi mënu ci dara la ci mënut parce que jël sa pirogue daw ba ci digg géej nga dugg sa gaal dem ak géej ni mu ñàngee ak li ci géej ni mu méttee yaa xayti mu naa ne xale yi nañ ñu dimbale ngir yàlla yonte bi ñooy suñu yaakaar ñooy yaakaari réew mi bu ñu sànq seen bopp parce que bu ñu sànkee seen bopp sànq seen réew yal na yàlla dimbale leen dimbale ñu allahumma naa ala sayyidina Muhammad si yaakaar naa ni ku dégg waxin bi di nga xam ne cri de cœur la kon na xale yi wax dëgg yàlla euh, kiy wax ak yéen exemple la ci réew mi ndax wax dëgg yàlla ci daara la jóge te tey bokk na ñi nga xamee ni ñu ngi leen di cité ci réew mi ci wàllu développement kon man ngeen a jël exemple ci moom. jëf jërëjëf El Hadji Ass Ndaw borom Ndoukoumane tey mu nekkoon suñu gan. Eh, ci seen émission yoonu gàmm dégg ngeen ko li mu wax ci wàllu daara wax ko également ci wàllu jàng ak jàngale waaye tamit wax ko ci eh, wàllu gàmm li nga xam ni wax dëgg yàlla moom la ci taxawee dégg ngeen mu waxtaanee li nga xam ne wàllu liggéey la ngir ñaax ndaw ñi eh, wax ni tamit ndaw dafa war di yëngu ngir yàlla ubbil ko ay bun waaye dégg ngeen li mu wax ci Serigne Mansour si borom daara ji ci digganteem ak moom ak Serigne Habib mbokki ak xarit yi ñu ngi wéy rek di ànd ak yéen. ci biir Tiwaawan ak seen émission yoonu gàmmu bu leen teggi seenu seetaan ci télévision bu mag bii di Mourchid TV jërë ngeen jëf. ay ca leen ñu gàmmu ji dem Tiwaawan